Adila Ba ñu dugg directement ci waxtaan ni ñu ko waxee léegi Daouda Mine la ñu dal moom mooy déjà taskatu xibaar la comme ñun mhm. moom moo jiite plateforme euh, numérique bu euh, groupe Futur Média nekk it euh, ci kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb site internet yi di appel benn si kuréel yi donc donc muy muy muy appel mhm. tey ñu daal di koy tab mu jiite commission de délivrance des cartes de presse et de validation des acquis noonu la commission bi tudd alors d'abord composition commission bi naka la demee hmm. ñan ñoo composé boobu ok donc commission bi mu ngi tudd commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis de l'expérience lu nga xamante ne code de la presse bu bees bi nga xam ne dañ ko voté en 2017 moom moo ko prévoir euh, ci code de la presse bi également dafa wax lan mooy composition bi parce que commission bi huit membres la dafa am huit membres titulaires ak huit membres suppléants boo gisee moom ay suppléants parce que commission bi dafa war a fonctionner toujours ak nga xamante ne titulaire bi bu absenté euh, suppléant bi dina ko mën a wuutoo léegi ñu ne nag euh, ci commission boobu dafa am ay représentants ñi fa nekk ñëpp dañoo représenté ay yenn euh, organisation dafa am kenn ku nga xamante ne moom mooy représenté ministère de la justice benn magistrat la am na suppléant moom tamit la am na kuy représenté ministère de la communication am na kuy représenté ministère du travail am na kuy représenté CNRA am na kuy représenté CORED am na kuy représenté patron de presse yi am na kuy représenté SYNPICS ak kuy représente APPEL mooy la association de la presse en ligne man bi ma fay dem euh, assemblée générale bu appel ñoom ñoo def assemblée générale après ñu jël ma pour que ma représenté leen. léegi nag lu kii bi code bi tamit dafa wax ne bu ñu tabee ñi nga xamante ne ñoom ñooy huit membres ba pare. ñoom ci seen biir ñoom ñooy seppi ki nga xamante ne moom mooy doon seen président nekk seen vice président. article bi yokk ci ne ki nga xamante moom mooy président bi forcément dafa war a nekk un professionnel des médias donc journaliste lay doon. moo tax temps yee passé bi nga naan magistrat moom moo koy jiite. en aucun cas mun woon nekk parce que code bi da ko encadré. Mhm. alors euh, gannaaw composition bi lan muy rôle boobu commission. waaw com commission bi comme ni ma la ko waxee même boo xoolee appellation ñaari rôle la mhm. muy joxe carte nationale de presse. Mhm. mais également valider expérience ñu nga xamante ne génnewuñ ci école de formation. parce que boo gisee dañ ne ki nga xamante ne dafa génn ci école de formation kooku posé wu problème. donc dem na saytu nañ ko ci école xam nañ ni Sénégal ñi nga xamante ne dañuy génn ci école de journalisme au moins bakk nga fay duggee te au moins di nga def ñetti at donc bac plus 3 nga am ñooñu posé wuñ problème ñooñu bu nga xamante ne ñëw nañ pour déposer seen copie diplôme euh, établissement reconnu par l' état la ñuy ñëw indi ak pièces yi nga xamante ne moom moo ci topp moom moo ci topp pour que ñu ñëw déposer et puis ñu jox leen carte nationale de presse ñooñu dañ leen di délivrer carte nationale parce que c' est des c' est des nga xamante ne de fait de droit dañ ko dañ dañ dañ ko yellool ñeneen ñi nga xamante ñoom ñooy problème bi mooy ñi nga xamante ne génnewuñ ci école de formation nekk ci rédaction yi mhm. foofu loi bi dafa am ñaari cas yu mu teg dafa ne bu fekkee ni génnewoo ci école de formation da ngay am licence ak ñaari atu expérience pour mën a ñëw ci commission bi pour que ñu valider sa expérience euh, mais bi ñu toogee ba xool président Macky Sall bi nga xam moom moo moo xaatim euh, nu teti euh, code bi mhm. en 2017 contresigné ko par le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne dañu remarqué ni bëri nañ ñu nga xamante ne ñu ngi ci presse bi tey ñu nga xamante ne répondre ci ñaari critères yooyu donc génnuwuñ ci école de formation amuñu licence ñooñu nan la ñuy def ak ñoom ñu ne léegi dañuy def dérogation encadré ko ñooñu mën nañ am mën nañ ñëw ci commission pour que ñu valider seen expérience mais il faut que ñu am expérience dix ans donc pour ma résumer la il faut que nga génn école de formation pour mën a bénéficier de carte bi soo ko soo génnul école de formation il faut am licence ak expérience de deux ans soo matalewul ñaar yooyu yëpp il faut nga am expérience dix ans ci ci ci métier journalisme pour mën a ñëw ci commission pour que ñu mën valider sa expérience. Mm-hmm. carte boobu ya yan avantage du mën a jox ki ko am. waaw carte bi déjà carte bi ñetti at lañ koy joxe seen une carte qui valable pour trois ans pour ñetti at. kuñ ko jox boo demee ba nga xam carte bi des na ñetti weer pour que mu expiré wu da nga war a demandé waat commission pour que ñu renouveler la ko. li nga xamante ne moom la carte bi di mooy lépp lu nga xamante ne état du Sénégal wala organisme international ñu ngi koy ñu ngi koy jox ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy jagleel presse bi ko amul carte boobu mënoo koo am euh, yenn rencontre yu nga xamante ne euh, na laa koy wax sax gouvernement du Sénégal wala organisme international ñu ngi koy organiser au Sénégal ku amul carte boobu mënoo ko mënoo koo am beneen bi mooy désormais presse bi dafay fonctionner comme ordre des avocats nu muy fonctionner comme ordre des médecins ni muy fonctionnaire ça veut dire que dafay am liste dañuy publier la liste de tous les journalistes du Sénégal tey jii tey jii Assane Gueye bu ñëwee ñëw ne man journaliste la il suffit tout simplement que nga yow nga consulter tableau bi pour nga xamante ne Assane Gueye journaliste la wala nekkul journaliste et képp ku nga xamante ne yaa ngi exercer la fonction de journaliste nga yaa ngi koy bokk di ko mbuboo te amuloo carte boobu dañuy wax ni da ngay def exercice illégal xam nga de de nekk du métier de journalisme et par conséquent mën na tegu ca kaw boo gisee benn policier bu nga xamante ne mi ngi woote ne policier la alors que nekkul policier kooku mën nañ ko yóbbu kaso désormais également commission bu commencé liggéeyam ba pare li nga xamante ne moom mooy dem ba publier la liste képp ku nga xamante yaa ngi mbubboo journaliste te amuloo carte boobu également yoon mën na tegu ci yow. Hmm. sa kaw occasion la kon pour lutter contre li woowee li ma Théodore Semedo doon woowee wax sànq naan ma les les rats d'hôtel. ah non loolu loolu dafay franchement man si sama sama xam bu gàtt. loolu dafay disparaître li may appeler mooy ñooñu noonu ñu essayer conformer wu. parce que ce qui va se passer bu commission bi commencé liggéey ba nga xamante ne joxe nañ liste ba pare xam nga am na vulgarisation bu nga xamante ne dinañ ko def. les autorités am na liggéey bu nga xamante war nañ ko def ak ñi nga xamante ñoom ñooy seen ñoon mu nekk organisme internationaux yi mu nekk ONG yi xam nga mu nekk ku mu mën di doon il faut que ñoom également via le ministère de la communication ñu communiquer leen li nga xamante moom mooy résultat yi li commission bi def donc ñooñu forcément xëy rek jël sa cartable dem def dem ci benn hôtel ñëw toogaanu foofu. xam nga ñëw foofu loolu dafay dafay dakk moom ça c'est sûr que dafay dakk. parce que léegi ku fa demate boo ñëwee foofu boo yoree carte bu nga xamante ne wal fajjire wala mu nekk carte l'observateur wala mu nekk carte benn kii carte yooyu valable la dul. Mm-hmm. carte nationale de presse lañ lay laaj. donc ñooñu nga xamante ñu ngi toogaanu foofu te amuñu carte nationale de presse bu yeboo ñu bàyyi ko parce que suñu moytul ay tolof tolof moo leen ciy fekk. Mhm. alors carte boobu yaa ngi koy wax am na ay avantages waaye euh, ñi nga xamante ñoom ñoo dem ba am carte bi déjà. Mhm. est-ce que prévoir nañ ay sanctions par rapport ak yenn dérives bien sûr que am na ay sanctions am na ay sanctions yu nga xamante ne euh, sanction pénale yu nga xamante ne déjà code bi moom moo ko prévoir am na yenn sanctions yu nga xamante ne c'est des sanctions administratives mhm. parce que tey même bu fekkee ne yaa ngi déposé ne dañu lay laaj kitu su correct CORED moom mooy organe d'autorégulation bi nga xamante moom mooy saytu ndax journaliste bi mi ngi respecté code déo euh, éthique ak déontologie xam mhm. nga man daaw du meen rek munuma toog ma ne journaliste la rek lu ma neex lay def même bu fekkee ne journaliste la am naa carte nationale de presse code bi ci boppam dafa am ay droits et des obligations man awma droit comporté wu nu ma neex am na droit awma droit wax lu ma neex awma droit bind lu ma neex awma droit attaqué ku ma neex au moins droit dégg benn son de cloche rek daal di bind information donc y a des y yu nga xamante nañ ko fixé bu nga xamante ne journaliste bi noonu la war a comporté woo léegi nag dafa am benn kuréel bu nga xamante ne du commission bi mais dafa am beneen bu nga xamante ne correct bu nga am ay moyens renforcés bu nga dañ ko jox euh, moyen mu nekk tribunal des pairs tribunal des pairs moom mooy saytu liggéeyu journaliste yi ndax ñu ngi respecté éthique ak déontologie suñu gisee ne par exemple Assane Gueye wala Daouda Mine li nga xamante mi ngi koy def ci presse bi dëppoowul ak li nga xamante ne moom mooy yoon dañ koy convoqué mu ñëw mën nañ ko réprimander bu ñu demee ba ci cëppaandaw ko mën nañ ko sanctionner par le retrait de la carte nationale de presse ñooñu bu ñu décider retrait bu ñu saisiré ñun commission pour wax ni ah délibéré nañ Assane Gueye retiré nañ carte nationale de presse am automatiquement dañuy retiré yow sa bi nga xamante ne moom mooy liste journaliste su Sénégal pour une durée mën na nekk retrait partiel mën na nekk retrait définitif mhm. bon loolu mooy sanction administrative am na sanction pénale c'est-à-dire que tey jii bu ñu décidé ne yow retrait retiré nañ sa carte presse yow nga continuer de exercer la fonction alors que ci amoo ci droit kaso mën na la cee fekk parce que y a des sanctions pénales qui son prévues euh, emprisonnement de un mois à trois à trois ans ak amende également de cent mille à un million de francs yu nga xamante ne code bi prévoir na ko mhm. de commission bi tey jii buy recevoir dossier ki nga xamante ne amul diplôme mu dem falsifier benn diplôme. ñëw joxe ko ci commission bi ñun bu ñu ko détecté kooku dossier bi directement procureur lañ koy yóbbu kooku kaso la jëm. Hmm. boobaa dafa falsifié donc y' a des y' a vraiment des des règles yu nga xamante ne fixé nañ ko te code bi bind na ko clairement am na ay sanctions administratives ak de presse que lu pas parce am nga carte nationale de presse trois ans yu nekk war ngaa ñëw su fekkee ne jox nañ la ko ñu xool ne par exemple trois ans yi ni nga doon doxale du noonu wala entre nekkatuloo peut-être journaliste wala et kenn du la joxati carte nationale si foofu laa bëggoon ñëw sax parce que dañ koy nemmeeku souvent euh, def euh, si rédaction quelques années hmm. euh, migrer dem par exemple si lu jëm si wàllum communication comment on fait avec ces gens yoo ci rédaction yi hmm. et hmm. dafa wax ne ñi nga xamante ne nañ génn def école de formation ñooñu ay journalistes lañ ak c'est des journalistes de formation ki nga xamante ne journaliste de formation mënoo ko dénier la qualité de journaliste. Mm-hmm. mais maintenant code bi comme dafa war définir lan mooy journaliste. boo xoolee code bi dafa définir lan mooy journaliste maintenant. Mm-hmm. dañ ne le journaliste mooy ki nga xamante ne mi ngi génn ci école de formation et dont le travail consiste en la collect la vérification et la diffusion de l'information donc ñaari condition la. génn na ci école de formation mu exercel en tant que journaliste ñu pour que ñu mën la considérer comme journaliste ñu ne bu fekkee ne génnoo ci école de formation il faut que nga nekk nga am licence nekk ci benn rédaction di defar loolu liggéeyu journaliste boobu également bu fekkee ni matale woo ñaar yooyu yëpp nga nekk ci benn rédaction di fa exercer mais am expérience su 10 ans pour mën a ñëw ci commission bi donc ki nga xamante ne am génn na école de formation am diplôme ba pare génn di liggéey ci agence gouvernementale wala mu nekk liggéey ci ONG kooku defatul travail journaliste defatul collecte vérification ak diffusion information mm-hmm. mais kooku dañ ne ñun commission dinañ la jox carte national d'identité de de presse de presse mais ki nga xamante ne mu ngi ci rédaction ci carte en service lañ ciy def mais ki nga xamante ne dafa nekk ci ONG en détachement la ñuy def ci carte bi pour que ñu xamante ne exercer wul en tant que journaliste mhm. man su ma su ma amee une déjà damay saluer euh, initiative bi c'est-à-dire c'est une décision qui qui pas venue très parce que yàgg nañ gis ay nit ñu nga xamee ne que dañuy ñëw ñu ngi ci milieu média rek mais dañuy wax seen bopp journaliste journaliste et au fur et à mesure du temps dangay gis ni ñuy doxalee xam na ñii amuñu formation ah, mm-hmm. amuñu formation école amuñu formation aussi sur le tas mm-hmm. donc euh, déjà lii c'est une très bonne chose mais man li ma bëgg a déjà ñëw Assane mooy récemment on a eu à ce que ñu wax lu aju ci wàllum euh, protection des données personnelles maanaam carte bi carte bi données yi ciy nekk euh, en fait comment est-ce ça ça se ça se conçoit nan ngeen ni collecter information personnelle au journaliste par exemple mm. est-ce que carte numérisée la puisque numérique dafa xew léegi wala est-ce que c'est pas ay ay cartes yu nga xamee ne que c'est ça fait comme nu ñu amoon habitude daan gisee cartes yi. Euh, beneen bi moom mooy euh, déjà bu ñu bu ñu bu ñu xoolee ay euh, xale yoo nga xamee ne que par exemple jàng nañ ba pare amaguñu deux ans d'expérience. wala ñu ngi nekk ci ci ci ci niveau stage kase. amaguñu contrat amaguñu du CDI du du du du du CDD. ñooñu euh, nan ngeen di def ak ñoom est-ce que ba tey ils sont considérés exclusifs ñu ñu war ñu war a am euh, carte yooyu. waaw première question bi mooy est-ce que carte bi na lay anam ban lay nekkee effectivement gis nañ ne par exemple tey jii jumtukaay yi dañoo avancé. ñun xam nañ ci dara par exemple man mi nga xamante maa ngi liggéey ci numérique xam naa ci xam naa ci loolu dara euh, effectivement def nañ tout pour sécuriser carte bi parce que. am na carte de presse bu njëkkoon am je me rappelle très bien ñun bi ñuy doog am man mës naa am carte nationale de presse parce que c'est pas une commission nouvelle il y avait une commission qui existait avec euh, l'ancien code en ñun amoon nañ ay carte nationale de presse mais carte yi ngandoon na nganda bu nga xamante et puis c'était tellement falsifiable maintenant te am na technologie yu bees boo gisee technologie bi nga xamante ne moom moo nekk ci carte nationale l'identité tey numérisée nga xool permis yu bees yi technologie yooyu exactement technologie yooyu moom moo nekk ci carte nationale de presse bi tey carte nationale de presse bu ñu la ko joxee exactement comme sa carte nationale d'identité noonu lay toll noonu lay mel exactement comme sa sa permis de conduire yu bees yi noonu lay mel technologie waxuma c'est pas falsifiable parce que adduna moom mhm. doo toog jamais nga ne c'est c'est pas falsifiable mhm. mais wax dëgg yàlla ku ko bëgg a falsifier il faut que nga am benn technologie benn il faut que nga am yenn connaissance avancée yi il faut que vraiment que tu t'élèves de bonne pour mun ko def. voilà moom mooy yu nga xamante ne def nañ ko ci au moins. et puis beneen bi même boo ko falsifié bés bu ñu la jàppee quand même soo matul kaso nga jëm parce que y a des sanctions qui sont prévues pour ça. beneen bi ngay wax moom mooy encadrement bi effectivement. nous avons fait en sorte que au moins données yi nga xamante ne ñi ngi collecté ñu ngi koy collecté ci journaliste bi te données ñuy collecté également nekkul ay peut-être ay données yu extraordinaire waxuñu la sa bulletin de santé waxuñu la lii waxuñu la lee déedéet yow li ngay indi mooy il faut nga ni casier judiciaire pour que ñu xam ne parce que code bi dafa ne il faut que nga jouir de tes droits civils et politiques. Mm-hmm. donc tey journaliste bu nga xamante ne tribunal dafa dafa délibéré ñëw ne journaliste bi dañ ko interdire d'exercer pour une durée d'un an kooku même boo amoon carte nationale parce que tribunal moom moo délibéré que ni yow mënutoo exercer la fonction de bu fekkee ni dañ la condamné définitivement mënatoo nekk journaliste casier judiciaire bi da koy wane donc bu ñëwee yow mënuñu la jox loolu moo tax ñuy laajte casier judiciaire ça n'a rien à avec peut quelqu'un qui est condamné un journaliste pour un délit de droit commun suñu yoon nekku ci moom la ak justice am mais code bi li wax mooy il faut que nga jouir de tes droits civils et politiques mm. donc nga mën a nekk exercer la fonction de journaliste laaj sa photocopie carte d'identité wala sa extrait de naissance pour wane ne nii nga tudd na la nga sant li mooy sa date de naissance ak nangam ak nangam loolu il faut que ñu am ko il faut que ñu am cutis su correct pour wane ne respecté nga les règles d'éthique et de déontologie ñetti photo d'identité ak benn déclaration pour wane ne bëgg nga carte nationale de presse et tu à ce que su fekkee ne yaa ngi am changement jóge nga ci presse di dem ci agence nga informer ñu pour que xam ne nekkatuloo ci rédaction mm-hmm. également nga engagé bu ñu retiré carte carte nationale de presse bi bu ñu la waxee ni indil sa carte presse nga indi ko voilà loolu lañ lay loolu loolu rek lañ lay laaj donc données yu ñuy collecté nekkul données yu extraordinaire nekkul comme par exemple service de téléphonie nga xamante ni dañ jël sa numéro téléphone dinañ xam peut-être mën non non waaw ñun nekkuñu ci euh, ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne dañ nekk stage ñooñu mënuñu leen considérer comme journaliste parce que stage quand même dafa am lu nga xamante dañ ko réglementé stage mooy ki nga xamante ne dafa nekk école stage mooy ki nga xamante dafa nekk école gis nañ ni par exemple ci école de formation yi boo nekkee deuxième année déjà dañ lay yóbbu ci benn benn rédaction pour que nga kii mm. la plupart ñi nga xamante ne dañuy dem ci rédaction yi moi je reçois des stagiaires mais convention la entre école bi ak ak ak l'armée mm-hmm. mm-hmm. donc convention bu boo bu fekkee ne ñëw na euh, déjà école bi na la jox benn carte pour wane ni stagiaire nga mm-hmm. boo ñëwee ci rédaction bi également dañ la jox benn carte pour wane ni yow stagiaire nga donc kooku noonu dans le cadre du stage fekkee ne war na dem sur le terrain il est toujours accompagné d'un journaliste tutélaire. Mhm. voilà ku nga xam ne am na carte nationale de presse kooku nag bu ko accompagné moom mooy doon garant. Mhm. xam nga wane ni par exemple ki ma àndal ni stagiaire la. Mhm. bu boobaa kooku dina mun fekk yenn manifestation yenn licence alors que ba tey stage lañu nekk waaw mais ki décroché licence nekk ci stage ci benn ci benn rédaction loolu la code bi sax prévoir même boo amee licence il faut nga def ñaari at ci rédaction régulière pour mën a ñëw ci donc boo amee licence te génnoo école de formation il faut que nga def stage dans une rédaction pendant deux ans pour mën a ñëw ci commission bi. d' man fu ma bëggoon ñëwee euh, balaa waxtu bi di ñu daan Mbaye Babacar nga baal ma mooy euh, techniciens yi aussi est ce que ñoom commission bi jël na leen en compte parce que mënuñoo wax journalisme génne si ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñooy techniciens je pense que ñoom ñëpp benn benn la ñooy ànd tout temps mm. est que commission en compte ñi di techniciens yi. effectivement li nga que tey jii. li nga xamante moom la ñu wax c'est journaliste et technicien de la communication du journaliste bi kese. tey jii même boo jëlee la convention des journalistes c'est pas la convention des journalistes c'est la communication. Mm. exactement commission bi également ñi muy délivrer carte nationale de presse. Mm. ce sont les journalistes et les techniciens de la communication. pour les techniciens également dafa am lu nga xamante loolu lañ prévoir. Mm. lépp disposition yi nga xamante convention collective des journalistes qui concerne les techniciens ñun yooyu la ñuy appliqué. technicien bi nga xamante ne génn na école de formation am BTS am am yooyu bu ñëwee également comme journaliste bi ni muy déposé noonu lay déposé. ki nga xamante ne amul BTS mais formé nañ ko dans le tas parce que am na ay techniciens yu xarit yu nga xamante ne ci ay rédaction lañ leen formé ñooñu aussi am na benn expérience bu nga xamante avec des attestations de travail yu koy prouvé ñooñu bu ñëwee ci commission leen jox carte moom la laaj xalaat mu gën a yaatu tuuti ndax euh, comme ci wàllu rajo la ak télé ndax hmm. euh, carte bi ci journaliste bi ak technicien bi kese la yem parce que hmm. rajo ak télé hmm. am na yeneen i nit yu fa nekk yoo xamante ni euh, dépassé nañ journaliste ak technicien par exemple animateurs yi mm-hmm. ñi fay nekk ñëpp daal mm-hmm. parce que le fait que nga ne ci rajo laay liggéey mm-hmm. wala ci télé laay liggéey nga nekk fa rek di génn ci télé wala ngay génn ci rajo bi ndax kooku dafa war a am ci carte yi wala kooku du am ci carte yi non ñooñu dañ leen a exclure ci carte bi parce que carte bi journaliste bi technicien bi ñi nga xamante dañuy collecter vérifier diffuser information parce que ñaari statut dafa am dafa am statut journaliste même convention collective des journalistes jëlu leen en compte. Mhm. waxuñu ni rek ci ci organe de presse organe de presse. bu mu mën di doon organisation la am na ay journalistes am na ay techniciens am na ay chauffeurs voilà am na ay preneurs de son am na ay ñeneen ak ñeneen. Mhm. donc ñooñu ñëpp organe bi leen jël en compte mais commission bi. concerné wul que journalistes yi ak technicien de la communication. Mhm. animateurs yi am nañ beneen statut bu nga xamante moom mooy appliqué wu ci ñoom. donc ñooñu mënuñu am carte nationale de presse. d' accord bon mhm. Assane je pense que leer na lépp leer na nañu ah fi mu ne nii moom ku ku def euh, lu la neex bu yoon tegoo sa kaw rek nga xamante ni yaa def lu la neex parce que lépp la lépp daal dinay leer ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, Assane ci li nga te moom nga ñëw indi di jaajëfal aussi euh, Daouda Mine ñu bàyyi la nga tàggatoo rapidement. waaw maa ngi leen di remercier encore une fois ci ci invitation bi. Uh-huh. Euh, di wax nag euh, di appeler surtout les confrères. Uh-huh. pour que ñu xamante ne suñu métier bi ñun ñoo ko bokk. Uh-huh. je pense que ñun ñoo nekk ñi nga xamante ñooy njëkk a bu ñu déggee ñuy wax yenn ci journalistes yi. donc euh, il revient nag il nous revient ñun journalistes que ñu def suñu kéemtalaay kàttan. parce que liggéey bi nga xamante ne ñu su sumu nañ ko. pour que mu mën a yemb mu mën a yegg ba ñu retrouver au moins notre lustre d'antan parce que yaakaar naa ne journalisme métier bu noble la mm-hmm. et que ñun également ñu ciy liggéey nous devons être des nobles mm-hmm. et ça commence par notre comportement ak mm-hmm. gis-gis bu nga xamante ne population mi ngi koy am vis-à-vis de nous. d'accord muy noonu Assane. di la remercier di ko remercier moom euh, Daouda Mine njiital euh, commission euh, de la carte c'est comme ça <laughs> la carte nationale de presse. Mhm. et euh, de validation, de la validation des acquis de l'expérience mhm. donc voilà di remercier mbokk yi ñu doon seetaan si ni ñu koy defee jeudi bu jot di leen dikk daje jeudi bi ñëw incha allah. incha allah merci beaucoup Assane Gueye aussi à Daouda ci disponibilité bi jeudi incha allah